kon nag xam ngeen ni télé bu nekk mënoon na demal boppam euh, diffuser boppam wutal boppam signal mais comme nit ñi dañuy bëri te événement bi benn la ñu seet ñun ñëpp nan la ñuy boole suñu doole boole suñu xalaat boole suñu sañ-sañ pour que incha allahu rabbi image yi dëgg la ku nekk di nga mën a def sa plateau mais les images les plus importantes mooy ku julli gi incha allahu rab bi ak arrivé bi loolu yëpp mu nekk les mêmes images wër àddina wër Sénégal mu nekk loo xam ni yëpp si suula le contrôle de Bouba ànd ci ak waa RTS ci régie bi ànd ci ak yenn caméra yoo xam ne ay caméra robot la yooyu yëpp Masalikul Jinaan préparé ko kon nag mun nañu wax ni mbir mi franchement euh, organisation Masalikul Jinaan moom moo ko préparé